yàlla noonu la waxee ak ñun ku wóolu rek ku wóolu yàlla ne ku wóolu rek defal ma def man yàlla loolu laa ci jublu motariste bi mooy Jibril président de la république bi mooy rasulullah Jibril mooy jëlee lettre bii ñuy wax alquran ca yàlla jaar fa mu war a jaar yépp indi ko ci rasulullahi jox ko rasulullahi ñëw ci ñun jox ñu ko ñun ñuy gëm ak ñàkk gëm waaw loolu rek laa bëggoon jàngale te bu dee président nga gëm ko bu dee yonent bi nga naan ah yàlla moom xam naa ne daal yàlla baax na waaye <coughs> dëkk bi daal metti waaw ah, yàlla daal baax na waaye dëkk bi daal moom daal moom gëmoo yàlla daal wax bi mooy gëmoo yàlla waaw boo ko gëmee it wóoluwoo ko yàlla lii la waxeek ñun nag dafa ne boo tëccee tëcc mu të nga fëgg fëgg kenn ubbilu la mu ne demal takki jabar yow góor loolu nag ni mu ko waxee fan kiixu dafa imposé naa la yàlla julli sax daf doon négocier ak ñun waaye muy ñëwee ci takk dafa imposé fan kiixu takk leen al ayaama minkum wa saalihina min ibadikum mu ne in ci charte yakunu su fekkee ne dangeen nekk fuqaraa jiñ woy ñàkk woy ñàkk faqiir mooy ko amul dara kon leer na kon yàlla xam na ne kii takk amut in su fekkee ne ci charte yakunu da nekk fuqaraa di way ñàkk bi amuleen dara mu ne takkal rek fa nga takkee mu ne yughnihimu dana leen oomalal allahu buur yàlla ñu ne fu mu koy jëlee mu ne min fadlihi ci samay ngëneel man yàlla waaye ñun loolu wuñu dañuy wax rek yéen a ngi naan ah, boo ko gëmee bu subaa nga takki ah waaw te ku ci ne am na koy génnal bu doon sa affaire bi dafa jafe waaye jafewut ndax ku ci ne am na koy génnal bu dee góor am na ku muy génnal bu dee jigéen am na ku muy génnal waaye lu ngeen fu ngeen génn jëm dugg leen fan ngeen génn jëm dugg leen udxulu fi silmi kaffa foofooy jàmm ji yàlla di dugg leen ci jàmm ji bu leen génn jàmm ji dugg leen ci jàmm ji udxulu fi silmi kaffa mu ne yuux nii mu dana leen oomalal allahu buur yàlla takk leen mu ne bu ngeen takkee man yàlla maa leen di oomalal ñu ne ko foo koy jëlee mu ne min fadlihi ci sama ngéneel yi man yàlla ñu ne ko lu tax mu ne wallaahu buur yàlla waasiun moo aji ji ci mbindeefam yi alimun moo xam ka takk te amul dara yàlla xam na fa mu nekk mu fekk ko fa jox ko waasiun rek bu ca yemoon doy na mais alimun ja nag mu ne wallaahu buur yàlla waasiun mooy aji ji ci mbindeefam bi xam ñépp alimun moo xam ka takk jabar te amul lu mu ko yoree mu fekk ko fa jox ko wërsëg mu ne wal yastaxifi ah fii nag yàlla woyofal wal yastafifi wal yastafifi alladina laa yajidu nikaaxan xatta yugniyahum allahu min fadli yàlla ne nag koo xam ne dan fi nekk gis nga yàlla du tëj li wolof di wax du tëj buntu tëj palanteer waaw am na ñoo xam ne psychologiquement kenn mënu leen travailler loo ñu calcul teg bilan fayekoo gu ma bu ma fayekoo lii laa ciy def lii laa ciy def mënoo fexe ba duñ teg bilan waaw ah, du da nga yaba enseignant yi rek ñoom waaye du ñoom kese de mënoo fexe ba duñ teg bilan xam nga bilan li ci yées da teg bilan ba pare yàlla indi bilan am maa la ko wax jox la fekk bilan yàlla bi calculer woo ko woon yow calculer nga ravitaillement courant ndox eh, fayu xale yi yow yëpp calculer nga ko waaye calculer woo feebar yàlla xëy rek dóor sibiru ci kër gi la ngeen waroon fayee courant ngeen fayee ko sibiru <laughs> waaw bilan day neex yàlla rek bilan ak plan moom day fi neex yàlla rek mu bàyyi la fa mu ne wal fi na négandiku nag alladi gaa ñi nga xam ne laa na amaguñ nikaaxan eh, jabar mu ne ko amagul jabar xam nga lu fi yàlla jublu bu mu tax ngay wër di njaaloo de aliou ñaan yegsil ni taalibe sëriñ haadi ñas waaw bismillah tafaddal ñaan ñaan <laughs> yàlla yàlla mën a wax mu ne na muñandiku nag alladina gaa ñi nga xam ne laa yajiduuna amuñu nikaaxan jabar ma ne buñ fi nekk naan dañuy njaalo ji de déedéet docteur boobu bëggoon naa xam nu mu tudd maas xamoo nu mu tudd waaw kañ Medoune Seye il est il est mhm. waaw wax na fi keroog wax na keroog dëgg yoo yoo xam ne tabaarakallaahu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, keroog medun déglu naa ko bu baax mu ne bari te dëgg la wax nag mu ne bari na kuñ naan dafa am faru rab mu ne du benn faru rab dangaa toll ci tey sëy te sëyoo dana génn yaa xulli ci bëccëg bi yépp boo tëddee gis yu kenn xamut naan faru rab du benn faru rab booy takki jabar mu dëj du benn faru rab booy takki jabar mu dëñ yow it jigéen kazalika léegi rek am na mbokk yu ma ko doon wax ci suuf ma leen kii bu ngeen bëggee mu wér takkal leen ko jabar utal leen ko jëkkër ah boo amul jëkkër jinne yi nekk sa jëkkër amul benn problème ñoom duñ la bàyyi nga feex de feex ci loxoy góor ñi wala ci loxoy ji jinne yi rek ah. mooy dëgg parce que ñoo la du bàyyi nga féex waaw te mukallaf bu tolloo ci sëy te sëyut li war a génn moom fokk mu génn rawati àddina bu bon bi nga xam ne boo génnee daanaka rek li siise jingé di wax xaaj Malick siise nee na nee na nee nga wodduwul xaaj <laughs> Malick siise jingé moo koy wax suñu maam jooju le mu ne mu ne sikket tëwul tëng moo woddu wut yaayi pap boobu maa ngi koy door a gis nu naka laati sax ñang waaw kañ ñang soxna si ñang waaw kañ kon nañ ci bàyyi xel gis nga islaam dafa yombal sëy ma taxaw ci tuuti ci foofu ndax ah, saar wi des na kat aslëf danañ bàyyi ba beneen yoon de li yëpp ci la bokk moom suratu nuur gudd na di des na lu bëree bëri kon fu 10 heures jotee rek ñu arrêté dégg ngeen 15 minutes moo ci des ñu arrêté julli fii dinaa ci taxaw li lay won ne li may layal mooy takk jabar du charte nga war a am xaalis wala nga war a am kër boo ko dugal wolof yi li ñuy wax teguwul fenn léeg-léeg wolof yaa ma neex rek lay wax li ñuy wax naan jabar duñ ko duñ ko mat dañ koy mën du dëgg dañ koy mat soo majeure rek mat ngaa takk jabar mën kuy ku ku la ku la wax ni danga koy mën yàlla daf la wax danga koy mën déedéet wolof gis nga wolof lu mu la bëgg a naxee rek indi dara teg booba balaa may dee ñu naan jabar kenn du ko eh, mat dañ koy mën kii kii bu ko mënoon tey baayam yor ay milliards ah Malick Fall ma la yor ay milliards xam nga ne xale bi am nay milliards wala de ndax bàyyam am nay milliards mais est-ce que mat mat naa takk jabar nañ waxante dëgg Mohamed mii laa wax mii bu bàyyam amoon vingt cinq milliards tey ah masalan bàyyam a ngi denc vingt cinq milliards tabax château tabaxal ko château tabaxal ndeyam château ah est-ce que tax na ñépp xam ne Mouhamed mii moo moom château bii est-ce que mat naa takk jabar <laughs> matu ko te de pourtant am na ci àddina bi am na ñoo xam ne seen baay yaa ngi am lu dul jeex mais matu takk jabar mën nañ ko waaye matuñu ko moo tax jabar dañ koy mat kenn du ko mën amul kenn ku fi mën jabar boo amoon doo gis président yi di xuloog seen jabar yi ba ñuy fay nit sax wala ah man de gis naa président yu seen jabar yi fay gis naa ko de wax dëgg yàlla damay bañ rek ay président sax xam naa ci ñetti président yoo xam ne seen jabar yi fay nañ lu ne lañ ci daj xam nga ñooñu bu doon xaalisa ak nguur rek seen jabar yi duñ fay kon lu tax ñu fay ah voilà ñooñu xam nga ne mën nañ ko mat nañ ko kon lan moo tax seen jabar yi di fay ok. Ah, yooyu waxu wala fa rek yonent bi salaay sallam dafa am benn saxaaba bu ñëw ci moom saxaabiyu saxaabatu mooy ku jigéen loolu nag yonent bi rek la daggan ci moom jigéen sallallahu alayhi rek la dagan moom jigéen ñëw ci moom ne ko may naa la sama bopp mu ne jël naa rek sëy bi fasu cen rek la koy jox jeex na loolu yonent bi rek la daggan ci moom ku dul moom daganul ci yow bu la jigéen ñëwee ne may naa la sama bopp ah dangay dem ci ay mbokkam ñu may la ko ci ni yoon santaane ñu may la ko loo bari bari bari daraja bu jigéen ñëwee ne may naa la sama bopp du tax mu dagan la yonent bi nag rek moom moo am jigéen ñëw ci moom ne ko may naa la sama bopp mu ne jël naa sëy bi fasu benn si ndaw ñëw ci yonent bi ne ko yow mi yàlla ni man dey célibataire laa te yàgg naa ci may naa la sama bopp yonent bi continuer di waxtaan benn saxaaba bu toogoon ci wetam mu gis yonent bi waxut mu wokk yonent bi ne ko yaa rasulallah waaw kii xanaa boo ko kiiwul nga kii ma ko <laughs> ñaaleen na kunta la sant moom loolu moom mën naa ko waat xam naa ne kunta la sant yonent bi fenetal ndaw si delsiwaat ne yonent bi fi mu toog de ci jotaay bi toogaat ab diir ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow ki yàlla yónni déggoo li ma wax may naa la sama bopp yonent bi continue di waxtaan rek léeg-léeg mu jox ma sama socc bi bi mu amee ay minute saaba bi waxoon dellu waxaat ne ko yow ki yàlla yoon yónni yow laay wax kii kañ boo ko kiiwul kii ma ko rek yonent bi noppi ba ci ñetteeli yoon bi nag ndaw si waxaat ko ne ko yaa rasulallahi may naa la sama bopp a ah, foofu yonent ndaw si waa ji àdduwaat ne yonent bi kii boo ko kiiwul kii ma ko mooy boo bëggut may ma ko xam naa ndaw sa moom jéppi na ko ndax ku ñëw ba ci naan ko may naa la sama bopp benn waay ju mel ni man naan boo ko kiiwul kii ma ko yonent bi sallallahu alayhi ne ko yow mii di ma wax ni boo ma naa la ko may jógal mu jóg mu jóg taxaw mu ne ko loo yor saaba bi ne ko dara yoruma dara dara dara dara dara li may wax ni xadis bu wér la ñépp ci d'accord saxaaba bi ne ko dara mu ne ko dara dara dara yoroo ko mu ne ko dara fii ma toog dara dara pikini yeneen bi ne ko ah doy na waar de daal ne ko sa mbubb mii nga sol demal nga summi ko nga jaay ko ca marché ba indil ma njëg mu ne ko kon àddina tukki di bii mooy sama sànni tàcc dama koy jonkonu sax bu tilimee dama koy jonkonu fóot ko mu wow ci guddi gi ma solaat ko bii mooy sama sànni tàcc mënuma koo jaay yonent bi ne ko ah mu ne ko te ndaw si bëgg naa ko de yonent bi dellu ne ko jógal fii ñu toog nga wër soo fi gisee weñ gu ñuul nga indi ko ma may la ci ndaw si ak kañ li fii ñu toog jógal wër boo fi gisee weñ gu ñuul nga indi ko ma may la ci ndaw si saaba bi jóg wër fii ba amoo siis gisul sax luy niroog weñ bay bay ñuul ñëw ñaq tooy xepp yonent bi ne ko am nga mu ne ko gisuma dara weñ gu ñuul sax weñ sax gisuma ko yonent bi ne ko loo mokkal ci alxuraan xam nga kii neexul a dimbale yonent bi ne loo ko yonent bi ne ko loo mokkal ci alxuraan mu ne ko indi nga fitna de mu ne ko ban fitna mu ne ko li ma wóor daal xul yaay wal kaafiruuna xul wallaahu ahad falaxi ak naasi juróom yii daal foo ma yee guddi ne ma tariko ko ma tari ko bu weesoo yii nag garanti lu ma la benn saar bu ma mokkal yonent bi ne ndaw si soxna si mu ne ko labbayka mu ne la ko may naa la saxaaba bii ci juróomi saare alquran yii mu jàngal la ko nga mokkal ko daldi ne bismillah ñu xutba sëy bi mu ne ànd leen wéy waaw lii xaalis tegu na fa damay laaj ndax xaalis teew na fa est-ce que xaalis buñ denc mu nga fa ki ki kiñ ko may yaakaarul dërëm fam jëm fanaanoo wut dërëm indi wut dërëm yóbbaale wut dërëm te may nañ ko soxna ci ay saaro alquran parce que saaro alquran kenn amul njëgam waaw senegal nag fan lañ teg boo bëggee takk jabar ñu naan la looy liggéey léegi nag bul bi tourneeti nag góor gu ci ñëw di takk jabar daf naan lu muy def cas social laay bañ ah boobu de moo xew léegi moom bul bi moo tourné complètement léegi jigéen ñi ñoo daan wax looy liggéey. jëkkër jafe moo tax. ah jëkkër jafe àddina tukki kañ nga naan ma jëkkër jafe moom jar na jëkkër jafe wut àddina tukki yemul ci jafe rek di àddina tukki ci boppam man léeg nga gis ku ñëw naan ma man daal am am xaj yi jatu laa bëggoon xam nga man comme may may maykati sey bi. wallaay ba fii may toog di wax ak yow am na demande yu ma jot de waaye ñoom ñëpp am xadijatu lañ wax waaye léegi ku ma ci wax dama naan la fexeel nekk am muhammad rek. sallallahu jeex na waaw waaw fexeel nekk am rek jeex man léegi loolu laay tontu waaw boo ma nee am xadijatu boo du du turu xadija lañ ci jublu de déedéet mooy ko yor. waaw bu ñu la nee may ma am xadijatu rek mooy ko yor. ndax Xadija dafa amoon wërsëg jël boppam jox yonent bi waaye yonent bi amoon jikko yoo xam ne jikko ye yàlla gërëm na ko ba Sayyidatuna Xadija gis jikko yooya wóolu ci yonent bi jël alalam ak boppam jox yonent bi léegi rek du ma tudd am na benn jigéen bu fi ñëw kilifa bu mag gis ko topp ko takk ko lekk ko ba mu set waaw kañ lekk ko ba mu set waaw jërëjëf ñu fanaan jàmm lekk ko ba mu set wecc te kii bu ma leen tuddoon turam moo tax man wax naa ko de te encore maa ngi koy wax insha allahu ab sëriñ ak ab ustaas du ko may jabar na war nañ une bonne exemple te defuñu ko waaw man man man yi may yi may yi may encaissé fii bu ma ko doon wax àddina tukki yooyu nañ ko wattandiku baaxut nañ ko wattandiku jigéen même jigéen bu la wóoloo bu la nit wóoloo day am day am jigéen bu la wóoloo am alal kañ jigéen bu la wóoloo xool la ba seppali la ci biir góor ñi ñu may la ko defal ni yonent bi defoon ñu bare ngi wax yonant bi bi mu takkee sayyidatuna Xadiija biñ ko ko mayee amaatul beneen jëkkër euh, amaatul beneen soxna benn sayyidatuna Xadiija gaañu siñewu koog moom de monogamie xaw ma nu ngeen koy waxee du noonu siñewu ko de siñewu koog sayyidatuna Xadiija de na sayyidatuna Xadiija doxalee moo tax moo gis yonant bi bëgg ko daj ci lu ne ñu may ko mu mag yonent bi fuuf ci at ñaar fukki at ak juróom la yonent bi am moom mu am 40 an mu magee ko 15 ans mu jël al yonent bi ñëw salaay sallam sayyidatuna Xadija milliardaire la woon bu doon ci jamono bi danga nga naan milliardaire la mu jëw jël alalam yépp woo ay seede jël jox yonent bi ne ko bëggatuma xam foo alal commencé fu mu yem man ak sama alal yépp jël naa jubbal la yaay buur yaay bummi loo ci dogal loolooy am kii bu ci takki woon ñaareel sayyidatuna Xadiija dinañ ñaareelam ñaareelam bii ci sama alal ji la ko takk dëgg wala du dëgg bu yàggee kër ga dootul neex ndax boobu yonent bi yorul voilà boobu yonent bi yorul ndax yónneeguñ ko boobu day sàmm yorul boobu yonent bi yorul su demoon takk yi ñaareel rek dañ naan alalu Xadija bi lay pasar pasare mu bëgg mesures yu prudent yoo xam ne kenn du ko jam ëllëg mu gérer ko alalam gérer gérance dafa metti bëggoo ko la yàpp bëggoo alalu jàmbur yàqu bëgg nga yit fi nga jëlee woon alal ji nga yóbbu ko fu ko ëpp dëgg la wala du dëgg mu nekk di gérer Sayyidatuna Khadija alalam boole ci di ko denc ba Sayyidatuna Khadija génn àddina ñu miraas lam ca am mu jël la Khadija moom ak njobootam mu jox leen la njobootu Khadija moom muy Sayyidatuna Fatima ak ñooñu mu jox leen ci ñu bari dañ ko ci def bu la neexee ay juridiquement moom wax lu yoon waaye charia charia bu islam yi bu la neexee nga ne ndaw si bismillah dafa koy jël nga si ñëw dem taxiwaat charia xam yow yaa ko signé sax affaire waaye du affaire charia léegi nag état bi nga nekk moom comme état moo ne yow yaa ko signé kooku état mooy moo lay topp moom waaye bu dee ci charia loolu charia ndax yàlla moom dafa ne benn ñaar ñetti ñeent yow ngay jaay mokk pooj ak jomba ñaaw yu kenn xamul ne ko benn rek rek rek kooku sa affaire la yow waaye du affaire u charia léegi nag réew miñ nekk wala yenn réew yu bari boo ko fa defee nag léegi nag juridiquement dañ lay topp yu bari mën na la ci fekk waaye li ma bëgg a wax mooy ci charia signé monogamie valablut boo ko signé woo charia daf koy dajjati sànni fële yoonu charia newu ci kon yonent bi salaay sallam loolu bokkoon na ci li tax waaw kay vingt net bokkoon na ci li tax mu yéex a takk yeneen i soxna ndax alalu jàmbur la yoroon di ko ko géreel te bëggul alal ji yàqu wala mu uti ci yeneen soxna ñu naan alalu Xadija la jël di ko takkee ay yeneen soxna kon musaa ñu wey tuuti rek xaaj Moussa kon ñu tëjee passage boobu te ñaan julli gis nga ku ci toll ci takk soxna takkil bu fi nekk naan damay xaar ba am yàllaa ko wax de man waxuma ko de waaw benn tey waa jooju ku baax na de medun mu ne parents yi nañ dimbale seen doom yu góor yi takkal leen jabar yoral leen ko ci kër gi dimbale leen won leen yoon wi bañ mën a am ñu bàyyi leen ñu dem te bu njëkk noonu la mag ñi daan def xamu noonu moo am waaye xale yooyu est nañ ba tey xale yi xaj yi duñ xaar mukk nga takkal leen boo mënee takk nag takkal te yóbbu waaye boo muñee sa baay takkal la dana la ut fu la ko dugalal yow jigéen it boo munee sa baay may la jëkkër dana ut fu la ko dugalal mag ñi bu njëkk danga nga tollu rek ñu ne la demal sa kër bàyyi diw nga dem boo demee ndaw saa lay gàttandu may la ndox boo ñibbisee sa papa la kooku laa lay ñaanali suba wala gannaaw suba kala may ndox kooku laa lay ñaanali te doo ci doo doo ci teggi baat yonent bi moo wax ne tànnalal sa doom yaay ju baax fukki at soo ko gisul teg ca fukki at muy ñaar fukki at ma ne vint dix ans rek ku ko doxaan màggat ah boo ko firee ne dangay doxaan dix ans doxaan du baat bu ñaaw mooy dox ànd ba bu ngeen doxee ànd ay kilifaa koy dox ba bu ngeen doxee ànd ci mbedd mi mu rafet su ngeen doxee ànd dugg ci oto mu rafet su ngeen doxee ànd dugg ci biir néeg kenn du ñaaw njort fekk mbokk parents ya dox nañ ko ba pare loolay doxaan wolof gaawal ko naan doxaan léegi nag yow bu fekkee ne da nga am toog sa bàyyi utal la bismillah sa bàyyi la ko yoral medun li mu wax je suis entièrement d'accord parents yi nañuy dimbale seen doom yi waaw fooy takk jabar jëmee mënoo ko mënu ko pour lan mënu ko mais dimbale ko yaa ko war a dimbale yaa ko yaa ko yaa dimbale ko waaw kay su ko defee yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel ku ci toll na la say woy waajur dimbale yow mënoo ko dimbale pour mu takk jabar mais gis nga mu ngi indi gelam bër bu set ci kër gi yow nangu nga ndoxaan waaye nangu woo takk yow bàyyi yaa gën a bon bu dee xale bu jigéen bi yaa ngi ko gis muy indi faram ci kër gi yow nangu nga ku ko doxaan si ndax 1000 francs yeeg 10 mil yeeg vingt 000 yi ñu koy jox ak yow liñ lay ñëwee ci bunti kër gi nga ñàkk fay dina xuttu xuttóoral naan mu ngi ci biir ndax mu poñet mosal mu yañ lay mosal mais ne ko kii di la seet si dinaa la ko may c'est tout waaw bu dee moo tànnal boppam may ko mu wéy bu dee yaa ko tànnal may ko dëj ko mu jeex kon yonent bi salaay sallam li mu wax daal leer na waaw ku ci tollu takkal waaw benn du ma ku baax boobu boobu lay door a dëkk fii 92 fin 92 mu jógee Tiwaawan nag ñëw seet si ma dama Chérif dama dégg ne da maye jabar waaw mu ne ma man de xam na boobu nag bopp bi xawutoon na kii ndeysaan mu ne man daal. bëggoon naa jabar waaye xam naa ne sama mbokk yëpp kenn nanguwuma cee may léegi nag man aw maama ku bëggoon alxuraan la nag mu ne ma aw maama ay maanukum noo déggee ma ko jaam ma ah jaam amatul waaye yàlla nee na mbindaan yi ci jekko rek jabaroo ko <laughs> ne ko diw mu ma ne ko aw ay maanukum jaam lay firiwut mbindaan de nga ma ne ko am na fu muy firi mbindaan waaye du fii de du ci wàllu sëy de <laughs> nit ñi nit ñi dañ feex de luñ bëgg rek daaj ko ci seen bopp yuharrifuna alkalima an mawaadi'ihi waaw ah, yuharrifuna alkalima an mawaadi'ihi luñ soxla rek daaj ko ci seen bopp waaw ah, aw ma malakat aymanuhum waaw mu ne yàlla dina leen oomalal allahu yàlla min fadlihi ci ngéneelam boo takkee te amoo loo yore yàlla ne man maa la koy yoral ñu ne ko lu tax ne wallaahu buur yàlla waasi un mooy aji yaatu yaatu ji matale fépp alimun mooy xam moo xam moom yàlla mooy aji xam ji takk takk mu fekk ko fa mu nekk jox ko wërsëg kon ñu taxaw foofu insha allah ba àjjuma bii di ñëw yal na yàlla sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu nabi almustafa alkarim sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu taxaw foofu ba àjjuma bii di ñëw ak jàmm yonent bi ne nañ nañ koy jàngal yàlla ne yonant bi nee na su ma sañoon jigéen ñëpp ñu jàngal leen suratul nisaa yi ndax li suratul ndax li ci nekk kon ñu ngi nuyu alxaaji Moussa Daaf